yéen bokki jullit yi yéen bokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu di ñaanal Seex Muhammadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi tamay ko wér ñoo ngi fii ci Touba Lansar kat ci Seex Basiru jaamu Sëriñ Touba ki fi bàyyi ko nag mooy Sëriñ Saalihu Sarr moom Seex Basiru Sarr jaamu Sëriñ Touba wootu woon fi magam ji Sëriñ Sang Sarr moom si Abou Sarr jaamu Sëriñ ni daaw bi ñu tabaskee ba am ñaar fukki fan ak juróom di bisub gaawu lafi fi bàyyi ko Sëriñ Saliou Sarr nag nit la koo xam ne ku yaatu la ku laabiir la ku ñëpp sopp la ku amut ak kenn xaar ma yàlla la ku lewet la ku tabe la ko ànd ak li ñu ci metti daal mooy gàtt gi rek waaye li mu waroon a def lépp lépp moom def na ko xam naa ne ka mu fekki mooy jaamu borom Tuubaa moom xolam dana sedd guy xelam it dana dal ndax yéeroon na taalibe yi taxawu na leen jàppale na leen mag ñi fi bàyyi woon teg na leen foo xam ne fii fa leen war a teg la ko àdduna ñëpp la kon noo ngi ñaan ci barkeb sóori leen abadan ci barkeb Cheikh Basiru jaamu Sëriñ Tuubaa yal na ak ruuxam dëkkee ci aljanatul firdawsi te njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi suñ borom tekki loxo nu ngi leen koy jaale di ko siyaare àdduna sépp di ko jaale Cheikh Mudul ak mboolem njabootu Sëriñ tuba gi di koy jaale mboolem këri Cheikh Ibrahima Sarr tàmbale ko ci Serigne Sidi Sarr mi ngi xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahima Sarr jaar ci juróomi kër yëpp ci sëñ Cheikh maam Cheikhum Darou Khoudous mi nga xam ne moom la ñu nekkal jaar ci kër sëñ Mbacke kër Baye Modou Sarr kër sëñ Mor Diarra Sarr bàyyiwuñu kenn. nag mi ngi wàcc ci ab liggéey. tey ci altine ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci mois de juin dëppoo ak fanweeri fan ci weeru korite la ci ab liggéey ci ndakaaru ci waxtu tàkkusaan talaata ji dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi juin ci lañ ko fas yéenee jëbbal boroomam bu ci yàlla àndee ci midi ci Baqiya sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp ñaan suñu borom yokk ay leeram ca taxaw ak njabootam ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul